dafa am ay préfet yu ko rejeté woon pour benn coalition pour question de couleur bi ko ministre bi yëgee dafa rappeler les préfets à l'ordre ne leen kii waruñ ko rejeter pour que des questions de lutte ça doit faire l'objet d'un arbitrage ñu rétablir coalition boobu dans ses droits te loolu nous sommes dans le cadre des élections te waxu leen ko je crois que nag il faut ngeen bàyyi non non non il faut ngeen bàyyi di jël gis nga justice bi ngeen di ŋàññ nii bés bu jéngee réew mi jéng je crois que ñi nekk justice di àtte ay gor lañ comme yow comme man comme kii des pères de famille am ay doom jàng lu jox leen seen responsabilité ñaw na ngeen de da ngeen bëgg réew mi fu ngeen toll ni ngaañu justice bi ca tegu leen ko fen lu wax rek naan la justice est instrumentée kuñ convoqué nga ne lu ma dem dañ may tëj yow àtteeg bi la nga lañ may ma demee lañ may li mu wax par exemple. non loolu laa bëgg jàmm. loolu laa bëgg jarul woon par exemple. juste taxawal rek l'affaire Barthélémy mu bañ a am renvoi ba li ma ko wax du ma ci jóg waaw. man ku ma xam-xam ne su may wax fii bien que Benno Bokk Yaakaar laa nekk jarul ma fen damay wax li nga xam ne mooy dëkk ca jàmm man moom moo ma ñor li ma leen di woo man ci jàmm laa leen di woo ñu dem ci élection jàmm dem ci élection yu leer. Pape gis nga li nga wax li ma la ciy tool man suma ma soñoon ñu renvoyer affaire u euh, mu Dias après les élections parce que ça ne change rien tout su sañoon ñu renvoyer ko fin février ñu dem élection ba pare ñu àtte ko pour wane ne effectivement li mu def ça n'a rien à voir avec les élections que le juge buy renvoyer dans son calendrier il ne tient pas compte du du, du calendrier politique ou électoral qu'il n'y a pas de juridiction politique au Sénégal qu'il n'y a pas de délit politique au Sénégal loolu il faut ñu xam ko su ko defee ñu dem ci élection après moom moom dafay jàkkaarloog yoon mais mu boobaa mais lu ko yoon teg ngeen xam ni affaire politique taxul man su ma soñoon ñu renvoyer affaire bi après les élections ces élections locales là je crois que ça va amener de l'apaisement ñu dem élection ci jàmm ñi nga xam ne nag ñoo jàkkaarloog justice du leen tere bu élection yi passé ñu jàkkaarloo ak justice